loolu rek laa man maam laa laa xam moom laa moom laa am yaqin ba nga fa jataay bu ba bii xamewuma ko lii dara rëbbati ci te am naa yaqin tam ci ci kanam dan mun na ñàkk ñaan rek suñu borom sàmm leen ci yàggal leen wéral leen ba ngeen mën a nekk ci liggéey bii na ko yéenee loolu rek la ñuy ñaan waaye amu ci dara loo xam ne doon bett sama sama sa am naa ci yàq kon jotaay bi njëkk wala nga toogoon nag man di ma ko wax ak ak jotaay bii xam ne moom ndax dara bett ma ci. waaw taxaw andi gan yi andi amul lu ñu ci wax ba. njaboot sëñ Tuubaa gii na àndandoo dem ba ca fa ñuy teg fa ñuy tàmbali liggéey bi ñu teewandoo ko dara doon ko ci dul nag bu ñu demee ba bay may yëkkati mool bi jiital ci ñaan bi la may naan ñun ñëpp nan teewlu ñun ñëpp nan teewlu bu ñu teewloo nee na ñëpp nu nu nu nu yeesal suñu jaayanteeg sëriñ bi di yeesal suñu yéene di yeesal suñu di gën a wéral suñu pasteef di gën a jublu sëriñ bi teel rek tax la cee dolli ko moo di bu ñu yeesalee suñu jaayante ba noppi li ci kanam liggéey bi sëriñ bii liggéey bii ñu tàmbali da cee bokk. waaye liggéey bi réy na yaatu na te il faut mu yóbbu ko fa mu ko jëmee waaye nag du tee ñu ñaan nanu ñaan liggéeyu sëriñ bi bii yàlla kattanal nu nun ñii fi teew nii kattanal nu ak ñeneen ñenuy wuutu ëllëg suñu moom kattanal leen ba ba ba bis ba sëriñ bi soxlaa jataay bii muy bis bu bis bis bisu bisu bisu daje ba rek kon ci barkeb sëriñ bi ñi yow liggéey bii ñi nekk ñi fi teewe ñi fa teewe nii ak ñay ñëw ëllëg ñay ñëw ëllëg muy béy liggéey bu mu laal suuf mukk nan ñaan bu mu laal suuf mukk lenn dong dong dong mu war a liggéey bi mooy yëkkati baatu bi sunu borom sëriñ bi ñëw léeg-léeg yëngutam bépp léppam eh, jàddul lépp mi ko def ci yëkkati baatu turam ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu yi moo fi indi mooy suñu dono ci loolu rek lañ war a nekk suñu lépp ci loolu lañ ko war a def di ñaan nag ñun ñii fi teew ñu ko dolli nu kàttan eh, ban mën koo taawu liggéeyam bii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 liggéey baa ngoog ñaan dong leen ciy dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ak ak mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te ñu taamu ko bu mu laa su mukk ilaahu kalimatillahi al oliya ba bis bi jiba ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa sëñ Tuubaa ba bis ba ñu fa sëñ Tuubaa demoo yàlla alhamdulilah yàlla na yàlla boole. ca noonu yëpp foofee muy demoo yàlla na si yàlla boole. ñun ñëpp nag képp koo xam ne xool sëñ Tuubaa xool xoolom sëñ Tuubaa gi yëpp biir ñu yaa ngi bokk nga ci ñaan bi waaw. ndam ndamam ndamam ndamam ëllëgam loolee yàlla nañ ci bokk waaye yàlla na lu gën a dimbali itam ban liggéey bi liggéey bi taawul ko ko ba bis biñ ci ba loolu rek ci barke ci barkeem ci baaxam